jin ke wudeya bula fii la opé a sembo warta janne ti municipalité bii la opé ñi municipalité jang awa siyata janne ndik seen sabari fii lañ ko defee ak sukuta bàyyi la tantankoton la celebration o yaa kijannaani sukuta te maa ngi leen a woon ne anda bàyyi talal la ko ñi ci nekka men bi jee ñi ci nekka men bi jee suñ ko bàyyiwut nii ma bula luwaa dina jaar ci yoon luwa be tambindila siloo la de kon woto maa ngi leen a ñaan abal daani la gambia dëkki diine la ñim banko mu dina banko le ti ñaari diine lañ fi am yoo xam ne diina fulale be ja meya lon ko ñu ndee bi ñoo judd ñoo ñi lañ fi yooyu lañ fi fekka birin tol be wulu la janga o diina fulale tala jang mooy christianité ak muslim wolom christianité di ani muslim te ñaari diine yi amul benn ko ci buga adu ñin diina fuloo bee fenti je men la fita wala ñëpp daaxa nañ ko bee a bayle du suñ aada tamit andu aten na aado kono kon maa ngi leen a ñaan doomi KMC abal daan la KMC dingul ngir yàlla ñun buñ toroxal suñ boppa ayal dani alayin kanam fantora ndi KMC fii bay KMC jàng ñun war nañoo sant suñ yàlla bu baax a baax tool ñanta ala tentu la baake président Jammeh président Jammeh lu nekk la ñu defal ay kuwo bele keñe dëgg la tooña street light Banjul la starté street light adamutata Banjul le te Banjul la ñoo ooyee city of light adun ka Banjul lekkil city of light waaye ñun ñoo leen ëppal lamba bari ñu toll le siyaade di lampo la ñun ñoo leen ëppal lamba bu baax ndelle siyaata di lampe baake kon ñun dañ war a sant yàlla woto ñanta ala tentu la le su fekkee ñun ñoo capital bi ñoo xëccoo lampa ni nga tan dol ni ka ñoo saba lampo kon nañ leen waa jërë jërëjëf président Jammeh woto his excellency lord mayor konsa foye ni mbaara soo leen gisee président Jammeh last year ngale président Jammeh jo ko jube santambi la dañ ànd see moom ci biir nawet fii naa taatale sama kodo jàng moom ci boppam because naar yim gis yi xew fii a fongoya jere men be hewda men be keri sama kono jang vice president mu yoni ko mu ñew set si ñu vice president aya ki kana ka jubero ke be legi taawut mom ci bopam mu ñew hani bi ate fama lo kana lan moo xew li ci tegu mu nekk da ni mu ne la taw kan ta road bi nekka fii nii moom moo ko fi def wo sila beto men be jangatale ya dow ku concrete road sini yebbe bir abuko wo concrete sila ba bir fo abuko atale ya dow ku bii nii nga xam ne léegi léegi tali nding fii ndox mi daf leen daan yóbbu jang me yaro ko janni janto jiyo ke sambale billahi président Jammeh dama doxa moom be foofu mu ne leen liggéey leen fii léegi léegi nii ani président Jammeh ya damale fo a danta dame a koy dara lu fay ko wo doon tellement fen soto président Jammeh fo dara lañ amut fay ko rek lañ wat me o national mobilisation ko nga men sota e to wala mo kaajo su fekkee pour fay ko la ni nga ta kaajo lem kon lum ñu wax ñu def loolu woto naa e men foñe nga oke lum ñu digal ñu def ko bem mut sek naa lafta nga men ka ya foñe nga ke fay timma sek loolu mooy suñ jëm kanam wala mun na ñaato taati APRC nag ako APRC parti bu neex la parti diimaa lem te yaa jaame ko neexal de président comme li olof yi di walla rek surwa kalmen fodrong ñu ne ku ne neexul ñu ku ne neexul ni men ko amandiya dafa bokkul ida daati jee walla ñun bi ci ne men bi jee xam nañ ne neex na de wala yàlla ko diyaatale ndik président Jammeh bay président Jammeh amul kenn ci Gambia bi koo xam ne musulaa njëriñ moo mota gambia banku kulo kan president jammela nafa man futa memma surtout ñi dëkk KMC sako men be KMC loolu every de la day xew wo mu loolu ne te ka kele kon maa ngi leen a ñaan doobi KMC ayal daani KMC dingolu nañ leen toppa président jamme ali nga bula président jamme no ma suma fa jógee ko na botawto dinaa leen gërëm sant leen waa KMC asal jay ayal tentu KMC koolu jërëjëf al nimbara def ngeen li ngeen war def al yaakaar ñanta men kala at bu nekk sawo sang su président tukkee muy ñëw ni président tamata bi na da ngeen ko dee woon ne ko yéen dëgg dëgg yéen yéen a ko gën a bugg a Gambia alkaitan ndi ala kontolle laftela gambia beeti ndik ñun ñoo ko de wone be mut sek bantelle ko yitandi fa ka timma sek billahi ñoo ko de wone be mut sek ako billahi ndelle ka ke fay e timma kon waa KMC jërëgen jëf oto KMC ko lord me o national mobilisation ka dimma KMC gàcce ngalama KMC gàcce ngalama def ngeen yëpp aliya beke jërëgen jëf waay ala baraka waay maa ngi waa président Jammeh tamit aba fala président Jammeh moom it maa sant di na ko jërëjëf a fana ye nin baara a y'a baraka ci lim ñu defal ci suñ municipalité bi a bɛɛ la kɛ ci municipalité ye waaye am na leneen lu des mu a ko kuu bi men tuta a ñaanoon naa ko ko a ye daani yàlla le nuŋ maa suma ministre ana la ministre dañ toog ci ronam i e siite daala ma ne ko ñun dee dañ am problème a kaa intel da nga problème o soto le te KMC yéen xam ngeen ne suñ benn problème rek lañ am boo xam ne KMC bee problème kilin doro nga wala soto mais yaa loŋ train dañ luñ pour takul ko na kata ñaawñaa pour ko problème o sol lu nekk luñ am ressource buñ am xaaf bi yëpp foofu laa dem ressource nga fefe sota xaafoo beka du wole to ba léegi nit ñi duñ dee gis luñ wa liñ faa def hani say moolu ye a jele i be a londi ka ki jee mooy mbiri mbalit bi wolo mbalitoo la problème o te kon ñu laa ñaan yo excellence nga dugal sa loxo suñ ron ye buloo dun koto pour ñu jéem a cléya mbalit bi nekk ci yen deema nga mbalitoo ni noo cléya jang tray naa lu ma mun a ye katala ye men nɔ li ma njëkk def mooy a ye men fɔlɔ bi ma jee over thirty tractors laa jënda a ye tractor tan saba le san waaye dafa mel ni dara xewut a ka mulun kɔfɛ man kɛ léegi nii luñ def mooy ye men kɛ wolem dañoo def set setal boo xam ne set setal ka kɛ men yaa lɔ dafa different ak suñ op normal operations woni normal operation set setal man kiliŋ boobu dimanche bu nekk moo saañang ak tiimam ñoo ko liit dimanche o dimanche moo saañang ak tiimoo le kawo kɛ boobu dañoo ci borom trox yi E kadun dulal kono ko kuwol toɓoto di di leen ñaan kamol dani pour ñu abal ñu seen trox yi yem fu la struction la def setdal ci gox yi pour ka kundal seneen waaye mbalit bi moom suñ problème la bay mbalito wala mun na problème o man di mayor of KMC atama mayor di KMC dama si caalit a fisaltaw koto lolo tam ma jël andi wala na duno jiga ma ne yow yaay suma boss aya ta koy tole ma la boss di te man yow laay copie ni nga liggéeyee ada be tele no me ka do ko gañame lolo tam ma suka saron wala na ñongi de koto di la ñaan pour nga ke ndani pour ye koto ko wa ken si ndaddu de ga kem sa na wota toñati bang foog naa loolu mooy suñ benn problème yaa la wala mun na problème baati su ma fa jógee ko naa botaw to ako na sorole jang mo tasabanin fula mendi bota pati do to kana APRC lisi yemu nak me abe ah, men fula je moy bodyguard Ousseynou Dabo bi momit bo sila boka e eh, Ousseynou Dabo la bodyguard o fana be wolle kono lolu mo si gëna yemu yo excellency wole fo fana kuma ta a ja moy so gisé tutawe ki a tawno ponkal bo de taw a gënaaw ponkal ba men kalo akoma ka kanta momit mu ne sonnana ako fana gabatata sodana a gabatata manet billahi wala dalahi dide ñom ben ben ako billahi wala alon do gabe batala suleiman do ma bala nga oyal mako mu ñew ako suleiman ya kumandi ba modu ba suso mori ba suso mori ba suso mori ba suso mori ba suso kai jambe musa afrika la limi wero mahamadou fa mariama fa boja muso bare bi mo ñew jannabina dafa ñëw ak 32 of them ani mo tesa banin fulale nat na ñoom ñëpp ñu ñëw 32 bi yëpp mo tesa banin fula bena bena ñëpp na ngeena si mo tesa banin fulo bena abena yo excellence bi moo ñëw fii yo sia sia fele dafa solon bubi UDP yëpp aya bee ngulan ne mu ne daf ko solon aya dunne dafa bëggoon pour su ñëwoon fii naa naata jàng ñu simbi ko lakako ka a ka jani waaye dafa am lu xew loolu moo tax ñu bàyyi le kata mi atina yow tu ji non tey bëgguñ fi yelo sax ko xali man a faala jam daal nañ bàyyi rek ñu solal la benn kola bo na doro nga kola no di la bewin kala wala ñinti eh ka be men kala wala a ah, president jame fonse kaba fanantentu kaba na youth leader lom eh, eh, fasi kaba tentu me ala ko youth leader lem afanan aka do ko ke KMC ba kala sakane youth sol debden liggéeyal KMC sakantuma youth si kon Kaba Jaata jërëjëf thank you very much Kaba Jaata jërëjëf si sa liggéey bu rafet so ñunu moom moo letti min yàlla koy botana UDP mu ne ñi ñooy nit ñu nga xam ne jóge nañ UDP nga naale Ousseynou Dieng aka sutiya min koto useni ko xam ne sironam la de gata akatara min si soto si si denam la de nega wolo ñinti koko taxaw ne wala fanan nata mo ko di lay fana e fem fo alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin benna euh, banko alpha ba kontonna mu nga noyi kilifa réew mi même mu hejiri chef professeur docteur yaya ejeje